sage la boo xam ni bu situation bi agsee fii euh, ak ni mu amee expérience ci wàllu opposition Abdoulaye Wade moo ëpp expérience Ousmane sonk ci wàllu opposition moo ëpp expérience Macky Sall ci wàllu jiite pouvoir boole bi ci des itam moo leen mag bi ci des itam xam-xam waxaale wuñu ko Abdoulaye Wade li mu bind waxuma la li mu ni mu doxale Sénégal mais li mu bind rek euh, mënees na cee defar ab continent waxuma la am réew donc tey dañu war a dégg ay kàddoom te eh, gis nga bu ñu déggul ay kàddoom Sénégal bu kenn ñaanu ko yàlla bu fi musiba amoon moom bokk na ci ñi gën a néew la lu mu fi lakkale tey nekku fii eh, amul njaboot yu koy sonal fii donc bu fekkee yëkkati ne kàddu yi mel nii dañ ci wax a bàyyi xel déglu ko dañu ko war a déglu dañ ko war a déglu te li mu wax ñu bëri dañuy méngoog moom xalaat ci bu fekkee eh, dañu tuumaal nit ki war nañ ko bàyyi ba topp enquête bi ñaata yoon laa lay wax fii ni leen aji sax bu ñu yem ci kaawam bu ñu ci ay audition nañ def enquête pour xam nit ñi xam lee personne xam seen ay moralité dafay gaawloo ñu précipité technique nit ki loxo ci jamono joo xam ne yoon may na ko ñu jàppee comme innocent ba keroog muy leer mais gis nga bi ñu précipité li mu indi borom xam-xam mag dellu soit na posé waat même question boobu euh, te nguur gi opportunité la ci kàddu yi am diggante barki démb léegi ci week bi ngir ñu am lu ñu waye fal Ousmane Sonko ñi coow li jeex Sénégal jëm kanam ku nekk nekk ca la nga nekk ku nekk nekk sa la nga nekk euh, mu mel ni kon sax bëri na ci ay réewu dendandoo yu nga xam ne nii euh, jamono ji ñoom it ñu ngay bàyyi xel bu baax réewum Sénégal muy les représentants des pays amis et partenaires ñoom nag ci ab ñu ngay ñaawlu ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakken fii ci réewum Sénégal ci fitna gi nga xam ne moo fi jóg jamono ji waaye it euh, ñu ngi leen di jaal seen i waajur ba noppi di sàkku ak dal ak dal fii ci réewum Sénégal ba noppi it ñu éviter mboolem fitna bu nga xam ne mën na cee dooleeku te mu ngay sàkku ci nguur gi ñu def seen kéem kattan yoon ba aar askan wi waaye ak seen ak mu di communiqué bu nga xam ne ni ambassade bu Union européenne waaye it euh, mboolem état membre moo xam Allemagne Autriche Belgique Espagne France Grèce Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal bëri na ci ay réew yu nga xam ne ni ñoom ñoo booloo xaatim ko mu mel ni kon jamono ji même waa biti réew ñu ngi bàyyi xel bu baax euh, réewum Sénégal. Siré euh, xam nga lu waral lool mooy pétrole bi ak gaz bi. Mhm. pétrole bi ak gaz bi. moo tax euh, amaana bu ñu ko amul woon ñi ci àddu yëpp sax duñ ci àdd te ñoom dañ cee dañ cee am seen intérêt mais ñun tamit ñu am ci sunu euh, intérêt moo tax jàmm ji daanaka booy xool euh, ñëpp la arrangé te da ngay gis ni ma bëgg a rebondir rek ci Ablaye Wade bi gis nga président lay Wade lu mu lu lu muy am ak contradiction contradiction président Macky Sall ci déclaration bi dangay gis ni ku am cofeel la encore ci moom da ngay gis aussi ni ku am cofeel la ci Sénégal te Olof Njaay dañuy faral di wax ni kasara gu ndaw moo gën kasara gu mag te vraiment yéene na ko ku la yéene jàmm rek moo lay moo lay artolu artolu nii malgré li fi jot euh, xew yëpp donc moo tax ma ne la sànq maa ngi la doon wax benn brèche euh, boo xam ni euh, tey jii Sénégal dafa bokk ci dëkk yoo xam ni non seulement waxuma la Euh, intérêt étranger yi. Mm-hmm. mais yeneen intérêt sax am nañ fi euh, bëgg nañu ñëw euh, implanté su Sénégal moo tax tamit ci crise yu mel nii autorité bi ci loolu nañ koy xaar. ça di dire que askan bi ñaxtu man jàpp naa ne li fi jot xew yi askanu waa Sénégal ñooy manifester seen ras bool te ras bool bi du rek affaire géopolitique yi ñi ci ñàkk liggéey ñi ci affaire couvre-feu bi tëral ñi ci am ay problème bu mënti doon ñoo génn manifester mhm. mais dafa fekk tamit ni ci responsabilité état la mu def de l'anticipation te mu jël ci anticipation mooy dañu am benn kawo boo xam ni moom la ñuy xaar Sénégal am rek pour mu nekk porox lu ñoo ñu dugg mais pourtant pour que ñooñu dugg nag il faut que état bi di jël mesure anticipatrice en tout cas tey jii le fait que ñu am pétrole ak kii bi war na mën a tax ni suñu contradiction yi ñu mën a am parce que contradiction mënta ñàkk mais nañuy toog di ko jéem a waxtaane quoi parce que xam ne bu ñu fi defee erreur bay dugg di reyante suñu biir keneen dina jaar suñu ginnaaw jël liñ fi jot am dem yoonam quoi. ñu ñëw voilà euh, euh, Birahim Sénégal mu mel ni kon ñëpp bàkkee woon ko réew mu dal mu teranga investisseurs yu bari amoon xemmemteef ñëw andi fi seen koppar surtout bi pétrole bi ak gaz bi euh, feeñee waaye ñu gis ndax fitna gi est-ce que du am beneen image bu nga xam ne man na waa biti réew mën nañu ko xoolee. xam nga boo gisee communiqué bi jógee ci dëkk yi bokk Union européenne. ak mhm. ni ñu wooyee ñoom dañu wax ni les amis du Sénégal c'est tout boo xoolee la sous-région sur le plan géopolitique mondial géopolitique africaine boo xoolee la sous-région dëkk yu ñu wër yëpp daanaka amul stabilité sur le plan politique euh, gis nañu ko euh, muy ci Mali gis nañu ko également ci Guinée ak feneen ak feneen Côte d'Ivoire li ñu wër bari ay fitna yoo xamee ni juddu na fa wala mës na fa juddu yàggul dara Sénégal ñu bàkkee ko un pays démocratique mais surtout de paix mu nekk réew boo xam ne tamit euh, ñu bari ci ay investisseurs étrangers dañu ci nekk li waral ñoom ñu génne li nga xam ne moom mooy communiqué bi noonu lañ koy defee ca Côte d'Ivoire noonu lañ koy defee ca Mali noonu lañ koy defee ci beneen réew parce que on est dans li ñu woowee benn village planétaire nekkatul koo xam ne ku ci nekk da ngay moom sa dangay nekk sa bopp euh, nga xam ne lii xew sa réew Euh, beneen réew euh, du ko soxal wala du du ci intéressé wu non village planétaire bi ñu nekk ñu am ay mission diplomatique Sénégal am ay ambassadeurs yu nekk un peu partout dans le monde euh, yeneen réew yi nekk ci àdduna bi yëpp am tamit li ñuy woowee ay mission diplomatique ci ci réewum Sénégal et comme ils le disent dans dans le communiqué ay xarit la ñu d'abord parce que on a des relations sur le plan diplomatique des relations sur le plan commercial ak i relations même je dirais le Sénégal et ses différents autres pays donc bu fekkee coow dafa am ci suñu réew c'est normal que ñu euh, yëkkati kàddu euh, pour wattu wala artu pour que jàmm mën a dellu si parce que quand même il y va aussi de la stabilité même sur le plan économique ci ñoom li ñuy investir wala ñun la ñu bëgg ku ci nekk di nga gérer sa intérêt c'est tout à fait normal mais mhm. intérêt yi au-delà de l'intérêt y également surtout li nga xam ne moom mooy euh, xaritoo wala déggoo mi nga xam ni moom moo am ci diggante réew yooyu yëpp c'est euh, un peu euh, ce qu'il faut retenir et Euh, Siré juñu na ko sànq sur le plan également sécuritaire dafa am loo xamee ni France tey mënul nekk di lijjanti Mali ak G5 Sahel euh, di lijjanti euh, feneen ca Guinée di lijjanti yeneen i réew ba pare war a wëlbatikuwaat encore war a dem di lijjanti Sénégal day nekk plusieurs fronts yoo xamee ni muy tubaab yi di ñii di africains yi mënuñu ko dékku ndax du France donc ndax gis nañu fi CEDEAO ñoom ñoo njëkk génne communiqué Euh, euh, commission CEDEAO moo njëkk génne communiqué avant euh, ñii di ambassadeurs yi donc li fi xew sa intéresse tout le monde on le dira ainsi. voilà Yacine Seck bu fekkee dina jàppandi ci kanam tuuti bu ñu mënee delluwaat ci nang ko Younoussa Baldé si tribunal ndax bi ñu joxee xibaar bi nekkoon depuis six heures du matin mi ngi fa. Mm-hmm. ñu xool ndax nit ñi daw nañu wutali fa am déet laata ñuy ndar képp bi la jot ay xibaar El Hadj Mansour mu mel ni kon ñi M2 d la ñuy tudd mooy mouvement de défense de la démocratie ñoom yi ak Front National ñoom nag nee nañu dégg nañu kàddu yi euh, ndawi euh, suñu euh, kilifa diine yi dégg nañu leen ba noppi dañuy dem tribunal kon voilà après ñu ñëwaat El Hadj ok alors Younoussa Baldé jàpp Younousa Baldé te laata laata ñuy euh, euh, rek euh, kon dañuy delluwaat ci El laata ñu waa M2D ñoom nag nee ñu dégg nañu ndawi xalifa diine yi seen kàddu rafet na te ñu ngi koy rafetlu waaye ba ñoom amaguñu occasion toog waxtaan ak ñoom diggante démb ak tay te nag dañu seetlu ni daan ya ñu tegoon ci kaw Ousmane Sonko ñu ngi ko fa teg ba léegi kon nag ñoom la ñuy sàkku ba léegi amul ak saafara looloo sabab seen manifestation yi nga xam ne dañ ko bëggoon amal dale ko tey ji juróom-ñetti fan ci weeru ba ba fukki fan ci heures jotee dañu koy maintenir fas ne joxante dig daje sa place de l'obélisque waaye lépp ci ak dal marche pacifique la ñu wax sàkku ci takk der ñu daal leen di encadré. xam nga marche musta am fitna. Mhm. saa bu marche amee fitna kii marche dañ koo xañ lenn ci ay droit am ci ma ci histoire Sénégal fu marche amee fitna rek dégénéré dafa fekk ni ñoom dañu am sañ-sañu def marche ñu leen doo leen ko fi marché. loolu nag moo tax ñi aayewaate ñoo war di dellu gannaaw ci décision yi jël bàyyi nit ki mu dem taxaw quelque part wala nga encadré ko mu dox quelque part est-ce que lacrymogène dina tàkk hmm. benn coow du am donc ñiy jiite la ñuy wax toujours ñuy xoolaat seen copie ci ni ñuy jiitee askan bi ci yërmande ci compréhension ci bañ a xool yow li la lu waa jox rek nga jëfandikoo ko xañ keneen ki li ko li ko yoon may. Mhm. donc yooyu dafay et naa ko sànq mooy bi tey Birahim di def précision bi ci li ñu teggi ci kaw Ousmane euh, Sonko. Mhm. ma ne kon effectivement yoon moo ko kon jox li mu am. mais du mhm. ñoom ñoo ko ko c'est très important. pour ñu ko du du pression kon. donc kenn ku ne fa nga ngànk kon yaa nga fa ngànk te loolu lijjanti lu situation beneen bi ci des maam. Euh, ñu ngi dénoncé ñun ñëpp presse bi ci yàq yi ci lakk yi mhm. ci toj mais damay attirer attention waa Sénégal et puis comme li may faral di wax ci dossier Adji Sarr bi dès le début dama ne woon bu ñu def audition nañ def enquête mhm. ñaar yu bokkul lañ euh, lakk yi ñu lakk marché Auchan yi aussi sacage bu ñu topp manifestation nañ def enquête mhm. nañ def enquête enquête aussi. Euh, ñi nekkoon ci banque boobu aussi. nañ def enquête. dafa yomb gis nga bi ñuy premier Auchan bi ñuy lakk mu ngi ci mooy bi ne côté jëppal mook utile ñoo taxaloo yëpp mook utile ñoo de ñoo taxaloo yëpp ay moomeel waa France la mhm. pourquoi Auchan kese beneen Auchan bi lakk fii ci côté deux voies yi mhm. ab ouvrier moo fa doon liggéey après mu tàkk bu bët set pourquoi liggéeyu guddi mhm. bi ci des mooy Auchan euh, bi échappé woon nekk mbuur bi ñu annoncé booy dawe ci ci ci kaso bi ay vingt une heures lañu attaqué nañu ko te ñun ñëpp Sénégal yëgoon nañu ni Auchan mi ngi doon wàññi personnel am motif prétexte bi problème économique mhm. te ñun ñëpp xam nañ ni installation Auchan fii ci France dafa jël en charge cent pour cent assurance am mhm. ci France donc mën nañ def enquête bu xóot lool ci motifu lakk cible bi ñu def Auchan les manifestants ñoo ciblé Auchan rek qu'est-ce qui lu ci réew mi du ñu nangu ay étrangers ñoo fi investir ba doyal planifier ba doyal occasionné ci benn potox ndoll def lu leen neex demaat Auchan yi ñu lakk yépp benn solution amul lu dul tëj bunt yi ak ay ay miir mool tëj yépp nga xam ni kii awgul yoonu ubbi. Hmm. moo tax ma ni suñu kilifa yi bu ñu topp yàq nañu lakk nañu saaga waa Sénégal saaga booy yi nangam nangam. dañu def enquête ci cible Auchan yi. def enquête euh, ñu leen di ñaan sax bu ñu ragal nañu ñëwaat investir parce que lii c'est juste un moment. ça il faut ñu def enquête. il faut ñu xam nañu fi ñuy jaar pour leeral dossier bi. et Auchan collaboré ak ñoom. voilà Birahim peut-être euh, fi ñuy def euh, mettre l'accent moom mooy marché bi nga xam ne waa M2D dañu ko bëgg a woote tey jii marché pacifique la ñu wax donc waxuñu kenn mu taal waxuñu kenn mu yàq. ci jamono ji waaw mais xam nga ni ko Mansour waxee euh, bu fekkee ni c'est encadré bu fekkee ne am nañu autorisation te il s'agit pas de demander une autorisation il s'agit euh, d'informer de déclarer ci wàllu maas mhm. euh, maître Abdoulaye Wade mu ngi koy fàttali sax ci bataaxal